ajjuma bi ñu dëgmal diggante ndax xar dina am seeraay gi ñoomin sopleeg pomme de terre waaye ni ñuy wax teg sa bopp loo mënul walla mm-hmm. wala ñu teg la ko ak li diine ji wax lu ciy gis-gis yi jéggi yéen en général soxna yi yéen ñi yéenay teg <laughs> yéenay yéenay yéenay teg teg nit ñi lu ñu ah, mënul waaw ah ku am sa alal di jigéen lekk ko moom euh, alkaani dikkal na la ndax bu doonul yaay rek nekk sœur bu nekkul sœur nekk jabar bu nekkul jabar nekk doom liir nga ci presse bi ki tay oto otoom benn Kia pour ñu jox ko xaru laadum un million kooku loolu loolu moom hmm. gàcce mënu koo yor ndax xaru 1 million mën nga si am juróomi xar yoo mën a bokk ak say waa kër. ku ci dugg yéen a ko ku ci dugg yéen a ko. koo xam nangoo xam bàyyi ma ma wax sama gis-gis waay. ku ci dugg yéen a ko ci euh, dugg vous êtes très compliqué. waxal malal kuloolu berger dama bàyyi. <laughs> dee tabaski bi mi ngi ñëw. vendredi 31 juillet la incha allah incha allah ñu fekkee ak tal sama anniversaire mariage sax lay doon. kon maa ngi siy kontaan bu baax di wax nag. wax si sa soxla de. xanaa ma Fall jëndal xaru 1 million. man sénégalais laa may wax rek ku def loo xam. wax loo xam boo tëjee ne la waaye ñu demul woon Màkka. te mm. décidé woon ko. xaalisu Màkka bi mën na si teral ñu bëri si tabaski bi. ça c'est vrai. waaw mais xam nga man ki bi. bàyyi sama wax. dafa am lu oustaz Aliou Sall wax et c'est très important. Mm. nee na soit dañuy tànn diine mbala ñu tànn aada. Mm. li diine wax mooy kër gu nekk. waxuñu ku ne na rey xar ah. waxuñ loolu dañ na kër gu ne benn xar mën na faa dee mën na mais mais attends. Ah, attends ah, malal il ne eh, attention. gars yi jubóo ci ci loolu nga wax daal li mu wax. mais waaw <laughs> der c'est une forme économiquement correcte. toujours seen ay xale yu bëri ngeen di rey ñu bëri nekk ko télé seen problème xale yu ngeen di rey mais Bouba kon nag nangeen ngeen benn xale yéen seen waa kër non wuyu ma Bouba. tabaski seen kër <laughs> non jéegi li ko waroon laaj est-ce que du yëre tabaski yoo am la sol sañ sañ sa yëre tabaski dañ koy génnee télé tabaski. <laughs> allez Bouba gis-gis. Euh, comme inshallah peut-être vendredi prochain. waaw ñu fi def jàkkaarloo. man damay may rek ñaari affaire bu njëkk bi. moom mooy mënuma imagine ak fii ñu toll ak feebar bi. corona bi ñu toll fii te encore une fois état bi jëlul les devants pour dugal ci bopp nit yi que ni semaine bii di ñëw. mën nañu yóbbu ci 15 jours après yi ci passé ci beneen niveau. si wax nañ ko. Oh, euh, mais non mais tu ma laisse parler. non je t'informe wax nañ ko bàyyi ma wax. je suis mais dangay wax sa wax bàyyi ma ma wax <laughs> sama wax. formé nañu ñëpp. def nañu ay points non non non non je te donne des informations buuba. bàyyi ma ma wax après. waaye dama lay wax rek mënoo ma wax loolu ma bëggul wax. bàyyi ma waaye dama koy jox information ah, bàyyi ko mu wax. jox information dama koy wax li am point de vente yi accrédité yi état bi yëpp accrédité ministre de la santé dem na fa ils ont pris les dispositions pour que maladie. buuba billaay bu doon maa yow damay jël congé. congé verbal barke rasul. non non non mais parce que man li may wax nii wax fa dëgg yàlla lu ma ñor la. ayca léegi moo tax mu bëgg mu bàyyi moom moo wax. waaw dama ne. Mm. dama ne euh, dañuy profiter rek ci kii bi pour wax que ni dafa am loo xam ne dañ ci war a taxaw moom mooy que semaine bii di ñëw ak nit yi ni ñu nar a bouger di dem ah li ñu war a njëkk a def mooy képp koo xam ne war nga mën a bañ a dem. tabaske fi nga war a nekk pour sauver yeneen nit wala pour bañ a amplifier nga def ko dañ ci war a taxaw. ci beneen affaire moom mooy que ci moment bi ñu toll jamono yi ñu toll bu ñu nekkul ci réew moo xam ne dañuy wane suñu esprit esprit de solidarité maanaam ñuy ñu gis que ni nit ñi sonn nañu ku nekk jël ci sa bopp nga wàññi sa ay bëgg-bëgg pour jox sa moroomu nit pour que au moins fête bi ñu mën ci avancer bu baax mënuma munuma comprendre que nit par exemple bu doon dépenser un million ci tabaski bi te ren doo ko xaaj jéem a set kenn ku ko amul nga jox ko ko pour man loolu moom moo war a nekk tey jii suñu discours ak suñu taxawaay comme un pays boo xam ne solidarité teraanga bi ñuy wax nañ ko nañ ko dawal na gars yi xaaj seen bëgg-bëgg yi boo waroon jënd xaaru 500000 saa waay jënd si ñetti xar jox ko ay néew ji doole ñu kii ko loolu moo am am am njëriñ te ngeen moytu tukki wi ku mënu ku mën a bañ a dem tukki ji ku mën a tabaski fii à cause du coronavirus là nga toog nañ leen découragé nit yi ci déplacement bi bu leen encouragé loolooy dëgg dëgg la ku ne fu nekk mën nga fa jaamu yàlla. ah on n'est pas obligé ku mën a daf may ma terminé. Mhm. ku mën a ter ku mën a man pour man xaar deux semaine ba tabaski passé nga voyagé dem seeti sa yaay. pour protéger ko moo gën nga dankaloo ci oto yi voiture de transport yi ak ni virus bi di circuler ci mag ñeeg affaire yi nañ leen wax nit ñi ku ci mën a baña tukki ba bañ a déplacé wu ñu def ko te loolu état bi def ko. monsieur Niang bon merci man damay juste. Euh, accès sama contribution ci lii par rapport ak sécurité routière ndax dafa may oto yuy jëlee ay xar di ko indi ci euh, ci dëkk yi nañu ànd ak dal surtout ñu xam ne ci période hivernage la nekk te hivernage bu ñëwee dafa augmenter vraiment risques euh, yi tali day tooy pneu yi baaxul et tout ça ñu gën a sensibiliser ñoom ñu gën a ànd ak dal ñi nga xam ne euh, du ñàkk dañuy tukki aussi ak seen njaboot di dem julli ji feneen nañu xam ne yoon oto bu gaaw amul oto bu yegsi rek moo gaaw ah, nañu ànd ak dal mm-hmm. ñu dem ndànk def ndànk en tout cas loolu mooy kàddu ministère bi mm-hmm. ñu vérifier seen oto képp ko amul woon contrôle technique mu régulariser contrôle technique am di leen sensibiliser ñu gën a ñëw mm-hmm. ñu contrôler bu ñu amee visite technique aussi balaa ngay départ l'entretien périodique c'est fondamental il faut que ñu ñu ñuy toppatoo suñuy yaram nu ñuy toppatoo suñu kër yi nañ ci parce que ku am na yenn détails yoo xam ne warul warul soox ci oto dañ gën a góorgóorlu loolu dell Papis waaw mais bonne fête à tous hmm, Charles exactement comme Papis te bu kenn manqué inshallah waaw man de dinaa ci wax ñaar mhm. bu jiitu mooy euh, bon jàngum alxuraan comme bu sa sàll boobu mu wax léegi mais li ma fi dégg léegi bokkul ak li nga xam ne méngoo na ak euh, santaane l'islam tabaski war na bépp jullit. bu ko mun. nit mun na nekk ci këram war a def tabaski c'est pas parce que da ngay tabaski sa soxna warul def tabaski. c'est pas que da ngay tabaski sa soxna tabaski nag sa doom. warul donte sax sëyul matee na ko ndax mm. kilif maskalaf la am na ko dafa war a tabaski. Mm. c'est des principes ñaareel ba mooy toujours dans le même siège. wax ngeen ba tudd xaru un million. oui xaru tabaski. l'islam en tout cas ci sart yi nga xam ne ci addition fi lañ ko jëlee wutaluñ ko sart wutaluñ ko limite. waaw waaw ah. wutaluñ ko limite. Hmm. ah leen seen bopp addis bi l'islam moo ko wax. Hmm. Hmm. kenn ku ci nekk bis boobu na ko def bisu bég. alalam lu mu ci jar na ko jël pour jënd ci xar mi nga xam ne. xar mu ñuy tudd la. Euh, un mouton digne de ko traduit en français. te mouton boobu nu mu gën toll. noonu la sa mën a jéggiim siraat di gën a yombee loolu l'islam da ko santaane boo gisee nit ñi def yooyu foofu la ñu koy wékk ñoom waxuma ne société bi fi ñu toll comme ni li di buuba mm-hmm. war na tax ku mënul jënd xar boobu ngay jéem a jënd xar boobu ba mu lor la ba nga ciy tayee sa oto wala ba sa jabar la ciy indil ay gaañ <laughs> mais ñiy jënd xar yooyu en général man je suis un éleveur le fais pas pour de la parce que du ma jaay man samay xar pour l'instant bokk mais li nit ñiy daj ci xar yooyu ba ñu war a mën a jot million ku nekkul ci biir munoo ko xam. munoo te ñi koy jënd aussi ñu ci bari boo ko seetee ñañ koy jox fañ leen teg moo tax ñu ne di jëndal xar yooyu. Hmm. imaamu grande mosquée Dakar boo ko jëndal xar pour mu rey xar moom moo war a rendi bis boobu xar moom nga koy jëndal. boo ko seetee dana jar million. lu xalu def dama exemple. <laughs> man ma déglu rek aru un le principe non déglu rek déglu rek maral ma terminé yi moom am na parole bàyyi ma bàyyi ma ah, pare. a raison. man damay wax rek les principes. man dama ko vous voulez un tabaski misérable c'est man man am naa xar man am naa xar boo xam ne wala xar yoo xam ne waxuma rek ma yar leen bi ma leen di jënd pour ñu dugg sama gét xam naa ñaata la leen jëndee ndaxte bu fekkoon dama bëggoon comme nu ngeen di wax jël xar pour rendi rek bu ma neexee ma rendi xar boobu million mhm. mais loolu gënalu ma man parce que du sama gis-gis fi may terminer mooy li ngeen wax rek mooy tabaski covid aar askan yi mooy fexe ba euh, virus bi bañ a circuler parce que tabaski lañ mm. virus bi nag pour mu circuler ndax tabaski la ñaari ko indi benn bi mooy transport gaa ñi moom ne nañ léegi ku mu neex dem dem ku mu neex dikk mhm. <laughs> bi ñu des mooy xar yi ak jumtuwaay yi ñuy tabaskee xar yi rek c' est des de transport. Ah. Euh, jaay ak jënd produit yi ngay jënd soble yi ak ah. bagages yi. c' est des de transport. Mm-hmm. xaalis bi ñuy weccoo ci moment tabaski bi dafay bari. c' est des de transport. Mm-hmm. du virus kon nit ñi war a gën a vigilant. Mm-hmm. ñu ñaanal nit ñi comme ni ngeen ko waxee dem ñëw. Mm. fi may terminer rek mooy pneu yi c' est parce que peut être tudd nañ ko. pneu bu bees sax mën na war a bañ a daw. pneu bu nekk comme ni nga ko waxee dafa am durée de moment bi ñu ko euh, fabriqué dañ ko bind. Ah, moment bi mu war a jeex dañ ko bind. vraiment mën nga jël pono yu on l'a jamais utilisé bu bees tàq la. te warul daw. waxatuma nag pono yoo xam ne daw na ba pare. donc yéen ñi nga xam ne yéenay seetaan. Hmm. fexe leen bu ñu leen di jaayati pono. am na quatre chiffres yoo xam ne boo ko xoolee. waaw nga xam kañ la jox kañ lañ ko defar ak kañ la war a jeex. c'est ça loolu c'est important ngeen bàyyi pour la waaw ñu ngi yàlla ñu yóbbu ñu sa jàmm déglu leen Bamba ci tabaski ñaan yàlla mu yóbbu ñu sa jàmm amiin euh, ñëpp ñu ko am yéene def yàlla may leen ñu am moyen ñu ko defee te ñu respecté rek euh, sartu tabaski bon defe naa ne sartu tabaski bokk na ci nga am xar moo xamante ne am na ay tegtal yu ñu yu loolu islam jox dayoo beeg yooyu moom loolu xëy na ku nekk ak la nga ko waaye daal xam naa ne bu fekkee ni prix yéegul trop ku am euh, lu xaw a takku war nga cee mën a am am xar. absolument mm. te ku ne yem ci sam xar tamit te bañ a xool lu xarum jàmbur. ba tax nga dugg ci ab lu benn. ñaareel bi euh, mooy affaire li Bouba wax dama ci d'accord parce que dama xool dernièrement ñu ne. 70 Dakar mooy épicentre bi actuellement. Mm-hmm. Mm-hmm. avec 70 pour cent. pour cent oui 70 sama xel na yar ma ne waa les gars yi bu ñu duggee ci Ndiaga Ndiaye yeeg. Tata yeeg. affaire yi ak même taxe bokk yi dem ci région yi wàllante ko ci biir oto yi wala jële ko ci biir oto bi dem jox ko ñi nga xamante ne ñoom xëy na fu mu nekk nii def nañ effort ba affaire bi new ma amatu fa mais néew na fa néew na fa nga xam dina doy waar absolument keroog bi ma waxtaan sama xarit sax dama ko ne man bu ma doon ministre de l'intérieur wala état bu ma doon Macky Sall damay ñëwaat rek jël benn affaire daaj gars yi ne ñëpp nañ tabaski fi mais loolu tamit du am cohérence amul cohérence ci bu fekkee ni déjà ubbi nañ frontières yi. oui bi ñu ubbi frontières yi di bàyyi xar yi dugg. mais mënoon nañ def lenn ren ñu ne léegi ndax xar yi ñëw ba ci frontière bi bu ñu fa ñëwee nañ fa yem teefanke yi nekk biir Sénégal nañ dem jëndi ko ànd ko dugal ko biir réew mais déjà jaxasoo bi am na. donc fu nekk nii. li booba di tiit effectivement man dama koy tiit man tamit. jàpp naa ne bu ñu jógee ci Covid bi affaire bi dina exploser. alors bu mujj bi. dernier ah, ah, point. ah, ah ma bëggoon gis-gis la. ñetti euh, la ñetti point la benn bi ci tabaski bi la woon beneen euh, bi ci côté santé c'est vrai que waaw beneen na la Aly Ngouille loo xalaat ci mais beneen bi ci propriété bi la hmm. tabaski nañ jëm yéen ñuy wax facteur ñuy wax euh, coronavirus ak facteur de propagation saleté. Hmm. facteur de propagation. mais bien sûr alors on reste si Aly Ngouille Ndiaye. Hmm. Euh, ça s'est passé lundi si avec. Euh,